waaw alhamdulilah rabil alamin xam nga sëñ bi li gën a yéeme macha allahu taala ku fi jóge 1990 30 ans bàyyil ñu fi bi ci jëkk mooy xalifa boo xam ni doo ko dégg ci benn détay di borom xam-xam bokk ci ñi jëkk am agrégation français arab ci Afrique occidentale di docteur Cheikh Mouhamadul Mansour Sall waaye dama naan sëñ Abbas radiallahu taala anhu lépp lu mu fi bàyyi woon bàyyil ñu ko fi yokk nañ ko lu mu sosoon rek sof nañ ko amuñu nag lu ñu fi sos ndax dañoo sof bu dee daara yi yokk na bu dee jàkka yi ak jumaa yi yokk na bu dee barabu jàngalekaay yokk na waaye bu dee œuvre yi mu fi bàyyi woon ñu koy saytu ki ci gën a jiitu di xalifa bi rafetal na ko boo xoolee tey alxayriya boo xoolee ci Sénégal ñaata jumaa lañ fi tabax wala ñaata jàkka doo xam ak yeneen doom yi nga xam ni ku mel na xalifa bi ay jàkka yoo xam ne ak i jumaa ay individuellement yoo xam ni kenn ku ne def nga ci xoolal ko mel na docteur Cheikh Mouhamadul Mansour Sall demal Liberté Extension nga gis lam fa am ci école boo xam ni école primaire ba enseignement secondaire lépp beneen bi ci des macha allah boo demee Ndelle daaru taqwa dëkkam boobu ma nga fa tabax jàkk ju mag mais boo demee fii ci Cyprès Cheikh euh, Ahmed Mouhamad sàll tabax na fa ngandam collège universitaire ba pare ak jumaa ju mag boo xoolee tey fi tey ñaata orphelinat lañu alxayriya construire fii ci Sénégal lu mat cinq orphelinat benn nga jam ñaajo am na bu nekkoon da nekk dakaar am na bu nekk Ngumba am na bu nekk Louga ak yeneen ak yeneen di def ay ndimbal kon dem gi mu dem metti na waaye bàyyi nañu njaboot goo xam ne ay jàmbaar lañu ndax le 2 juillet ak léegi boo demoon tey tey tey fa mu dëkk ca Louga da ngay xam ni moom àdduna wax dëgg yàlla da ko tegoon ci dëkk mal yàlla moo waral tey fi tey fa mu bàyyi woon njaboot ga ñoom ñëpp kenn ku ne ma ngay nap na bi di ci góorgóorlu ci wàllu diineem ci wàllu yàllaam kooku mooy Serigne Abbas radiallahu taala anhu li gën a yéeme Serigne Abbas radiallahu taala anhu fépp fu mu mas a jaar masu faa bàyyi aw xas moo tax képp ku bokk ci moom fi la nit ñiy xool mooy sa baay aka ragaloon yàlla aka am xam-xam aka nangoon jaamu yàlla waaye aka respecté nit waaye aka baaxoon te daawul fayantoo danaa wax naan man Serigne Abbas du ma mer du ma xuloo duma xeex te képp ku ma tooñ bu ma la mënee dama lay baal moom kooku mooy sëñ Abbas kon parcours am daanaka boo jëlee ci ci ci jaar-jaaram ci œuvre yi mu fi bàyyi école am bu mag boobu nga xam ni bi ko ko naar yi financé xaalis bi bi mu ko jotee sax ay jaamur la ko jox jox ko kenn ku mu bokkal koo xam ne si danaan sax sama njaboot dañ ci amula wala lii kooku mooy sëñ Abbas radiallahu taala anhu ba tey fii nga xam ni moom la jóge tey 30 ans dama ne xale yi fi judd woon nekk ay mag tey fi tey bare na loo xam ni bindoon na ko te xale yi xamuwuñu ko tey fexe nañu ba xale yi ci bare xam nañu kan mooy sëñ Abbas radiallahu taala doon góor gu ragal yàlla doon góor gu baax doon góor gu amoon respect ci doomu aadama yi waaye jëflante képp kuy doomu aadama rawatina ahlu turuq yi tariqa yépp ñi fi nekk fii ci Sénégal ñu mën ci site kër njabootu Seydi Hadji Mal ci li ma xam man njabootu kër Cheikhu Omar Fouti radiallahu taala njabootu kër Cheikh Ahmad Bamba radiallahu taala ak shurafa yi nga xam ni dañoo nekk ay tiijaan wala nekk ñu tiijaan deel deritu yonent bi rek bëgg na la del doomu aadama di jub tey jub rek sëñ Abbas bëgg sëñ Abbas wax naan am naa doomu deret mais samay doomu ruux ñoo ëpp ñu ne ko kan mooy doomu ruux mu ni képp ku tegu ci njub rek sama doom nga def naa la doom man Abbas képp ku tegu ci njub te ma mat la bàyyi jàppe naa la sama doom ndax sama doomu ruux nga ndax moom sëñ Abbas xamul xamul ay karaama wala lii wala laa li mu xam daal mooy jaamu yàlla ak bëgg alquran moo ko waraloon mu daan jël ay nit ay ay nit di leen indi ñuy jàngal alquran njabootam mu leen di fay ci xaalisam. li may wax jeunesse bi bu ñu naan crise des valeur ñun nous avons des am nañu valeur mais roy dàq moo ñu sonal fekk benn benn footballeur nga xam parcours am xam jaar-jaaram ak ay biens wala benn mbëru làmb moo ñu gënal fekk Cheikh Bamba lan la liggéey wala Seydil Hadji Malick wala kon mën Sëñ Abbas Sall kon tey fi tey jeunesse bi li ma leen di wax mooy nañu bàyyi xel ni crise des valeurs euh, ñun nous avons des valeurs am nañu ay valeurs lan nag la ñu war a def dañu war xool mag mu toll na sëñ Abbas génn àdduna gane àdduna 1909 génn àdduna le 2 juillet 90 dund 81 ans ñu koy tey fàttaliku ci 30 ans bi mu demee ba léegi 90 ba 2020 est-ce que jeunesse bi waruñoo xool càmbar seen bopp ni ñun léegi est-ce que waruñoo dëpp xool mag ñi lu baax li ñu am bañ leen di fàttaliku ndax man bu ma fi jógee danaa am lii ndax man mag mi lii mu def te temps bi mu koy def ci temps de jeunesse am maa ko magoon ci âge tey fi tey ma dem ba am 30 ans te jotumaa def dara man lan moo lan lay réaliser ma xool mag mi jaar-jaaram ci ay réalisation nga ni kon léegi man xaaral ma jaar fii pour ma am lii kon li may sant jeunesse bi nañu roy mag ñi te xam ni am nañu ay valeurs yoo xam ne bu ñu ci jaaree du ñu juum te loolu la sëñ Abbas def ba pare te da daan ñaax ndaw ñi ci jàng da daan wax naan ànd ak nag dee leen jàng ndax nit jàng la baaxoo te ku jàngul mbaam nga te mbaam sëf la baaxoo te boobu boobu dañ lay sëf te bu bañee nag dañ lay dóor moom noonu la daan waxee mu ni nag ànd ak nañ jàng leen ndax doomu aadama dafa war a jàng te nit bu jàngul rek mbaam la te mbaam dañ koy sëf ndax sëf la baaxoo te mbaam bu ñu ko sëfee bu demul dañ koy dóor kon xoola kii détient la sabar rek détient la pouvoir ndax doomu aadama dafa war a jàng yàlla bi muy wax naan yonente bi iqra te impératif am na yoo xam ne bu jógee ci yàlla yu jubul fi la waajib la moo tax yàlla ni iqra yonente bi ni ko jàngal à l'âge de 40 kon ñun jeunesse yi nañu jàng mag ñi waaye nañu wut teggin ndax nag sëñ Abbas daan wax naan ja teeyal tewegu te jàng wax ci mbooloo wax mooy balance gaañaa wax te booloo teeyal tewegu te jàng wax ci mbooloo waaye léegi lan moo xew toog ci internet bi saaga kilifa homme politique chef religieux ku la deful dara benn journaliste romb la nga bind lu la neex ci moom léegi ñu ni ñun da affaire bi kenn ku ne dangay def lu la neex est-ce que mënuñoo dellu ci njàngum mag ñi mag ñi nga xam ni talif nañu bàyyi fi ay wolofal ay arab nga dem ci mag ñi seen jaar-jaar xam nga ni Pape Malick bu ñu koy fàttaliku lu baax la ñuy wax ci moom si alaaji Tafsir Sakho parcours am ak yonante bi Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck parcours am ak yonante bi mais kon lan ngay foofu mooy nañu dem jàng mbindu mag ñi man loolu laay digal jeunesse bi teeyal tewegu te jàng wax ci mbooloo wax mooy balance gaa ñaaka waxte booloo xatta quraa'i xuquuq albaari fi xalqihi wa ma lahum min jaari xatta ucaamila ibaad allahi fiihi bihi lillahi laakallahi fasirtu min riqiati alaxyaari